vision bi mom vision bu simple rek lay doon parce que da fay bayiko ci li nga xamni président Macky Sall daf ko def mu nek sas moom sasu bopam ak sas administration bi yep ak gouvernement bi yep sas bi moy citoyen bi mo am droit xam li xew am information bi ci anam yi nga xamni mo gëna sel a te information bu wóor loolu tax nous santoon ñu réfléchir ci benn doctrine de communication ñu jébbal ko ko mu indi ci xalaatam defar ko valider ko delloo ñu ko ñu maintenant mottali leen liggéey bi ñu tënk ko ci programme de gouvernement bu tudd làmb daj programme de communication gouvernementale bu tudd làmb daj mais beau fait ni cette mission mooy nga fexe ba jot sénégalais yëpp ba jox leen information yi faw nga seet jumtuwaay yi nga xam ne ci la sénégalais yi di xibaaroo nga indi ci moom moo tax ci li ñuy wane tey am na ci lu bare loo xam ne mi ngi aju ci xarala yu bees yi maanaam am na application boo xam ni ku yor tey ji téléphone portable bu Android mën nga ko télécharger maanaam def ko ni nga télécharger yeneen ak yeneen mu lay jox xibaar saa yoo ko soxlaa wala saa yoo ko bëggee génne mu yàgg ci moom am na lu mel noonu loo xam ne ñu yor téléphone portable yu nekk ci Android mën nañ ci jot mu am surtout gouvernement boobu surtout commune big big pour wax ci li nga xam ne moo aju ci gouvernement bi ak ay activité am mu nekk site boo xam ni li muy permettre tey jii mooy sénégalais bu ne mën na ci jokkoo xam ndaxte lépp def nañ ko ci ci agenda bi waaye moom dina am droit aussi ak possibilité wax ak gouvernement bi ci ay laaj yu ñu koy laaj walla ci ay yëg-yëg yu mu am. bëgg ko jottali gouvernement bi ci li nga xam ni dina gën a action bi nga xam ni moom la ñuy def ci bopp réew mi ak li nga xam ni citoyen bi la mu soxla ci information pour mu gën a weer naka noonu am na yeneen yu bees yoo xam ni wane nañu ko mu nekk ci euh, gën a yokk sunu taxawaay ci rajo yi ci rajo communautaire yi gën a yokk sunu taxawaay ci télévision yi ndaxte site bi nga xam ni moom mooy site dina am benn espèce de télévision gouvernementale pour ñu mën a suivre activités yi lëkkale ko nag ak xarala yu bees yi yu mel ni ay Twitter ay Facebook li nga xam ne day yokk rek capacité wu gouvernement bi pour mu gën a jibal xibaar yi mu jëm ci nit ñi waaye loolu it day fekk si li nga xam ni gouvernement yi doon na ko def di génne ay communiqué am di génne ay livre am bilan yeeg yooyu dinañu kon def waaye dañ ci yokk lu bees loo xam ni dinañ ko def ci ay anam yoo xam ni ki ko soxla dina ci mën a jot. te bu ci joté dina que yu ndaw dina ko pour dara ko bi nga président Macky Sall wax gouvernement gouvernance sobre vertueuse c'est une gouvernance ouverte démocratie bi mu dañu démocratie 2.0 Nous jox citoyen bi bu partagé jox citoyen participer donc big loolu rek la fiy jëriñ ba lépp li nga xam ni dafay nekk information balaa ñuy dugg sax ci wàllu communication citoyen bi jot ci ba mën am xelu boppam am jàngatu boppam am gis-gisu boppam. waaw non segg du sax mot bi mooy censurer pour wax ci ci tubaab mooy dàq ko euh, kooku dafa am responsabilité boo xam ni du responsabilité gouvernement ci boppam parce que dafa am wareef boo xam ni moo fi ne ànd ak ni technologie xarale yu bees yi jébbee mooy li ñuy wax régulation maanaam tali bu amul ku ko réguler am ay feu rouge ñiy jaar nii ñu tere lii li kenn du mun ndaw kërit bu amul régulation mais ci biir kër autorité lañ koy wax ak waxtaan bu amul kenn du ci mun dëgg donc ci li ñu seq nii du yëfu gouvernement dafa am kër goo xam ni moom la war te mu nekk loo xam ni souci wu àddina bi yëpp la régulation boobu ngi Amérique mi ngi France mi ngi Sénégal mi ngi partout waaye kenn mënul dàq tey jii li xarale yu bees yi may nit ñi kenn mënatu ko delloo ginnaaw waaye mën nañu seet naka lañ koy jëriñoo ndaxte la muy jëriñ mooy nit ñi am diggante sàkkuñu ko pour mu yàq diggante yi. ñooñu dinañ ci jot ci rajo communautaire yi waaye dinañ ci jot ci ay déplacement yoo xam ne dinañ ko mën a amal. ak lëkkaloo yu ñuy lëkkaloo ak maire yi ak lëkkaloo yi ñuy lëkkaloo ak euh, gouverneur yi préfet yeeg sous yi di ay jataay yoo xam ni dinañ ci mën a jot te dinañu gën a yokk sunu taxawaay ci rajo yi rajo communautaire yi wax naa ko dinañu yokk gën a yokk suñu taxawaay ci mbind mi ci kàllaama yi nga xam ne moom la sénégalais yi mën a jàng moo xam mu nekk ci liifantu ci wolof ci séeréer ci joola film yi ñuy def dina nekk ci kàllaama yooyu dina nekk ci wolofal pour sénégalais yi ku ci ne ci la nga xam ni mooy sa capacité nga mën ko jot ci anam yoo xam ni wér na ndaxte démocratie dëgg la nee nañu débat bu libre la waaye réew mi am na loo xam ne mën nañ ko fi constater rafetlu ko mooy wax sa xalaat bare na fi ñu toll ni dañu war a gën a góorgóorlu ba yokk wax sa xam-xam bi parce que loolu mooy gën a suuxat démocratie